yàlla na nga yërëm Muhammad bu ci boole kenn yonent merut waaye dafa ne ko xajarta waasian mu ne ko ah yaa ngi xatal lu yaatu wa rahmati wasiat kulla shay wa rahmati wasiat kulla shay waxul sax kulla ahadin su ma yërmaane ñëpp xaj nañ ci ba tax am na benn saalihu dafa toog moom yàgg rek mu ne allahuma ya man wasiat rahmatuhu kulla shayin ana shayun faltasani rahmatuka ya arhamar rahimin rek jug moom maanaam dafa jël yàlla umoo comme li ñuy wax yaa ne su ma yërmaane daj ñëpp xaj nañ ci maanaam maanaam mun naa dajal lépp lépp kumoo kumu man man affaire la man shay u la kon nag na ma naa ci dugg ay dëgg te daf ciy dugg jafe na waaye mën naa am kenn dafa toog ci kanam yonent bi rek ba mu yàgg comme nit ñi mii rek yaa arhamar rahimin comme ñuy wax yaa latif yaa arhamar rahimin noppi yonent na ko xam na ko inna arhamar rahimina aqbala alayka fasal mu ne ko yow arhamar rahimina bi nga oo mi ngi jubloog yow léegi di déglu ñaanal nag xam nga ko sone sone maanaam Belgate ci États-Unis ne ko dafa am ay xam nga sone ko rek da nga gis ay ordinateur yu bees rek nga bëgg ci rek sone ko ba mu uyu la rek waxoo dara te lii moo gën a raw yaa arhamar rahimin yow mi daq yërëm képp ku yërëm yàlla ne la jàkk ak yow gisoo ko mais yonent ne la inna arhamar rahimin aqbala alayka li jaabaang lu jublu léegi dugal nañ caabi ji waxal yàlla ubbi ba mu ko jàngee ba léegi fépp fu mu wax yaa arhamar rahimin xam nga lu ma ci teg salli ala sayidina muhammadin wa tub alayna jullil ma ci yonent bi te ñépp nga nangul leen tuub su ma nekkoon man kenn nag su ma nekkee ci kaw su ma nekkee ci suuf yépp benn parce que yàlla yàlla il faut ñu nangu ne liñ soxla yépp ci moom la ne tariqa tijaaniya boobu nag yéppam noonu la mel xam nga nit ku nekk ci ak ñaan ak naafila mooy tariqa ki xam jëlee ca ka gën a xam ne la àq joo amee nit ëllëg bés benn duñ ko fay ci sa àq yi ca magasin yàlla la ñuy jox xaaje ba mu gërëm ndax yow li nga amee bu ci dara wàññeeku wa tabiatu min xazaini l majid tabiatu min xazaini l majid moo taxoon nag pour jàngale rek Cheikh Abdoulaye Wudul Xaaj al Alawi dafa daan wax ndongo ya ne leen ca gànnaar suñ ma mënoon a gàddul ne tijaan laata ci laay dee bu loolu suuree mun naa gàddu muskila ni ñépp ah yàlla da la gërëm naa la waaye lii bokk ci xaaj mais nag mag la fa ragal yàlla jeex ci yàlla mais nag léeg-léeg mu ne nii de su waxee ne leen al waxtu waxti wa zamaanu zamaani booba booba keroog mooy la waxtu wi maa ko moom jam jamono ji maa ko moom tey ah maanaam yàlla jox na ko ak kii ah yàlla moom yotti yotti yotti waaw te bés bi muy faatu ma doon ko nettali ko bàyyi ma ko nettali ay dafa oo xaritam yi ñu ñëw ne ci bergenem xam naa waaye nag déedéet damaa bëgg rek ngeen fekkee ndongo Seydina Cheikh ni muy faatoo mais ndongo bu spécial la xam naa ñu waxtaan ba mu neex leen rek mooy la eh deegaa ngi suma suma suma pieds yi suma dëggu yi mi ngi dee deegaa ngi suma yeel yi de ah fi mu ne mi ngi suma oom yi mi ngi suma ndigili mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci waaye léegi mi ngi ci suma dën bi ba noppi dee loolu du duggee ci néeg bi dugg ci néeg bi am koo xam ne su ma xarit boo xam ne du du kii du fala fala boobu moo toppoon ci ministre bi amee affaire diini yi ci Maroc mu ne ma dama dem ci montagne atlasien gis fa benn waa ju baax ku simple xam nga gars yi dañoo simple ci jamonoy modernité wala yu bëri ma wax leen tey lu garaaw nag wala yu bëri daw nañ dugg ci euh, ci capital yi ci nit yàlla yu garaawee pour bu ñu leen xàmmeeti li gën a garaaw nag du loolu aarifin yu bëri biñ commencé enregistré ba léegi noppi nañu waxatuñ dara ci maarif ah non dama leen di yëgal rek ju njëkk a léeb rek nag alors nag waa ja nekk ca atlas ca montagne ya foofa benn xaritam luy si ko ba wetu timis mu muy dem mu ne koy toogal damay am gan te bu ma sañoon nga nekk fi buy ñëw pour ngeen xam ne xëy boo shahada ah mën naa sori waaye mënta sori waa ji bi toog di jëli timis mu tëdd mu ne ci canapé gan gi toog di xaar salaamaaleykum gan ñu ñëw mu ne dee ma toog bu mbàgg dëkk mu naan waaleykum salaam marhaban marhaban marhaban ndeke malakul mawti lay nuyu ba marhaban ba dee macha allah waaw kon nag yooyu yëpp maa ngi ci jublu maanaam ruux jullit léegi-léegi damay bëgg di wax ak moom comme pas comme tuubeen déedéet judd ci lislaam màgg ci sa maam màgg ci sa maam màgg ci nga toog ba léegi ngay tudd yàlla di toog yoon il faut ñu ñu wax la tuuti lu wuteeg li ñuy wax gars yi pour ñu dugg ci lislaam moo tax ma waxee nii te am naa neneen ah yeneen kay yuuf doy na kon nag maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala tariqa bii yal nañ ci yàlla jëriñ nàndal ñu ci barkeel ñu ci faj ci suñ soxlay ruux ak suñ soxlay baatin ba ci suñ soxlay zahir bi jaahi rasulillah suñu sëriñ dañoo wax ci taarixam ne nit ku bëri wërsëg la woon Cheikh Ahmed Tidiane bëri wërsëg moom sax léeg-léeg mu manifesté bés na ne leen su ma neexoon ma amee juróom-ñaar fukki famille kenn du tawat ma di leen dundal dafa bëri wërsëg ci barkeem maa ngi ñaan yàlla nañu yàlla may wërsëg bu bare bare li ñuy jooy di wax ay crise dëgg la crise fàttali rek la comme bopp buy métti nga gaaw faju mais nag bu neexee yàlla mën na ko jaarale ci kenn ci ñoom kenn ci ñoom ñu dem ba kenn dootu dégg crise dootuñ ko dégg mukk ne jóg yàlla mën nañ ko dootuñ ko dégg crise lañ ko dégg dégg parce que xamul sax yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam toog na ne saaba yi ragaluma ñàkk de ci yéen am ba bew kay laay ragal alhamdulilah gars yi dem nañ ci dem nañ ci ba kéemtaan la toog nañ ci Medina Baye Niass ci wetu teen boobu nekkoon ci wetu jumaa ji mais jotaay ba moo demee woon noonu rek mu waxaat nafs shay ne ragaluma ci yéen ñàkk de xanaa bew rek ëllëg man ma fekkee koo xam ne déjà ci taw coopérative yi nga xam ne da nga gis nit ku dem banque touché ay millions lal kaalaam gàddu fii di hors taxi réew mi amul agression amul dara da nga gis ñu jënd gerte ba war ko ñu yokk prix bi waa ji calculer prix prix prix démb ba prix tey bi xaalis bu bëri mu jël ko Sénégal di pat pati ma gis na koo xam ne bàyyi Serigne Mbaye Niass al alaamatul aarifu bi rabbihi abbu ko oto bàyyi seen mbay amul oto te moom kooku moom moo am oto mu abal ko otoom mu dem ba ñëw ne ko jazakallahu xayran ba muy dëdd mu naaj jazakallahu jëlul essence xam kooku xamul lu xew jazakallahu mun na jënd ab yow xam loo espèce su beewoo nga gis naa ko bàyyi ne bul lef nangam foofu du sa foofu du sa duggukaay mu mu mu bañ bés biñ ko waxee ne non li bàyyi wax la la la ñuy def ba muy départ ak oto ci tali bu bees bi dafa doon def ay étincelle ngir mer loolu du bew mais nag terewul mais nag yonent nee na dinañ dem ba nit génne asaka du am ku mu ko jox bichaara boobu mooy ummatu bi ci am lañ jëm jëmuñ ci ñàkk mais day ànd ak rek tugg yàlla bu ñëpp nañ nangu laa ilaha illallah ñëpp nañ nangu allahumma salli waaw foofu mooy bunt bi entre temps nag ñun wasif ñun wirdo weeg wasifa yi seetlu ngeen ne seetlu ngeen ne dafa yàlla he ndaxte amul ci benn formule bu am wax soxla delluwaatal nga seet rek yàlla ngay tudd yonent ngay julli ci moom booy ñaan xëy na après mais suñ ñaani wirdo wasifa ak yëpp yëpp yëpp ak xadara yëpp yàlla rek la moo tax ba bàyyi di tontuwaaje ci cinquante et un ca uriitu ci commencement diwaanam ba ah famal wirdu illa dicru lillahi waxdahu tusalli ala almuxtaari xayri waraayi fa ma fihi dicru cheikhi aw dicru gayrihi fa wirdi ridaai labdi aynu dawaay ndax dafa njëkk ne jàpp leen ci sunna bu ngeen ko deful nangam nangam nangam génn naa ci yéen yépp lay waxal mu ne mu posé boppam question bu nit war a wax soo ne ndax wirdo yi moom ci sunna la bokk ma ne la waaw ndaxte wirdo yi du lu may tudd yàlla moom kenn julli ci yonent bi turu Cheikh Ahmad Tijaan sax nekku ci moo tax wirdo yi li ngay tawat yépp yow jaam ci feebar wirdo yi mooy garab gi koy faj garab gi koy faj ñu nekk ci nag sant yàlla lool waaw te suñu fukki minute yi ci des benn minute bu ci nekk rek yal nañ ci yàlla gërëm ngërmaane lu bees yi mu defal ñu ko wér yi mu defal ñu ko ubbeeku yi mu defal ñu ko ngërmaane suñuy kilifa yi mu defal ñu ko jàmm ci suñu société yi mu defal ñu ko lam ñu tànnal bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama ñëwoon rek man pour toog ak asxaabul xatmi tijaani toog ak ñi jógee ci wasifa ahad di ñaan yàlla ci qul huwallahu ahad yal nañu yàlla nangul yal nañu yàlla méngoo yal nañu yàlla sédd yonent daf daan ñaan ne yàlla yàlla nag ñu may te yàlla bu ñu xañ daan wax naan yàlla yàlla nag ñu yokk yàlla bul wàññi daan ne booy booy préféré yàlla nañ doon ña ngay préféré yonent ko daan ñaan waaw yal na yàlla sàmmal ñu suñ bopp sàmmal ñu suñ njaboot sàmmal ñu suñuy àndandoo musal ñu ci wépp ay ak borom ayoon lu ci waay sàkku te mu doon loo xam ne lii dafa baax ci yow baax wala ci keneen yàlla ko yàlla jàppandal ku bëgg a uti sax lu baaxul yàlla moo la mën a ommat réorienté la ba pare jox la lépp la nga doon uti mën na ko sañ na ko yàlla na ko def ñu ngi ñaan ci barke Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mi nga xam ne nee nañu li ma leen wax yëpp yëpp yëpp yëpp ci ay ngëneel ci tarixa bi duur sax mbir ma dëgg-dëgg ndax mbir ma tudd ko daganu moo ko wax moo ko wax te moo ne bu ñu dajeeg yàlla bés penc ci ngeen di xam li ngeen am moo ko wax xam nga du mbóot du mbóot mu yi nëb mi ngi mi ngi ci téere yi nee na bés penc dañ samp gàngu naay toogal ko ca mu naa di woote ne yéen ahlul marché ki leen daan tëbb te xamu leen ko mi ngi nii nag kon nag nañu wax ñëpp kon amiin amiin amiin hmm. waaw am nañu xatmul quran guy jàng léegi ankañ loolu ci la lool ndaxte alquran mooy li ngeen xam te yonteel Muhammad comme moo ne fu ñuy xatmoo alxuraan maanaam fu ñu ko jàngee ba mu jeex rek ñaan gu nangoon fa moi je dis ñaan gu nangoon fa pour kenn ku nekk ci ñun du kenn ñaan rek ku ñuy ñaan pour ñëpp waaye googu sax mën naa am aqimi salaata inna salaata tanha an ilfahshai walmunkari wala dicrullahi akbaru wallahu yaalamu ma tasnauna moom laa bëgg ma ma moo mooy daal tàmbali wax ji tudduma aaya ji waaye jëfandikoo naa ko waaye nag beneen yoon ndaxte ni kon damay dellu ba ca ñi nga xam ne dañ fii ne ñukk yàlla di ut ñuñ méngoo yàlla dafa ne dañu mel ni jargoñ buy ràbb néeg mu ne néegam jargoñ alxuraan nee na moo gën a ñàkk solo ci néeg yi kéemtaan la nag ndax ràbb ak jargoñ ndekete du dëgër ga ndax boo ci science scientifique yi buñ dajalee ràbb ak jargoñ la muy tolloot ci ci ci ci buum yu ñuy ràbb da nga xam ne dëgër na waaye ndekete aw xëngal buyut la wax dafa ñàkk sécurité dañuy rayante rek ci këram jargoñ moo tax yàlla ku doy waar la yàlla xam na li ngeen di jéem a jaamu jaamu muy ay xirim ak yu leen di dox seen diggante ak yàlla mu ne yàlla loolu mënu ko wàññi dara rabam leen mu ngi leen di jox ay ay misaal ak i lépp waaye nag xam dëgg rek mooy tax nga dégg li la yàlla di wax yàlla bind na asamaan ak suuf waaye ci dëgg la ko bind dëgg ne root ak caaxaan dégg nga te loolu mu ne ku gëm boo ko déggee mun nga cee waaroo door a wax nag ne jàngal utlu jàngal maa uxiya ilayka min alkitaabi yow yonent bi bàyyi gaa yi rek ñuy caaxaan yow jàngal alxuraan moo tax ku ne war koo jëfandikoo jàngal alxuraan dégg nga ndax mu ne te nga julli ah, ndaxte julli julli gu jub boo ko defee julli dafay tere nit mu dugg ci lu ñaaw ak def lu bon ak luñ sib waaye nag tudd yàlla gi ngay tudd ci biir julli li julli foor foor moo tax julli foor walla li ngay tudd yàlla moom mu tudd la tudd gëm lay tudd moo gën a foor ala kulli xaalin alxuraan moom boo ko jàngee te moom la jiital jàng nga alxuraan tudd nga yàlla ndax zikru la tilaawatu la mais nag boo demee ba ci biir mu ne yàlla xam na li ngeen di def nag li ngeen def bi xam na ko mbay daf caa yemut mu ne ahlul kitaab pour nga xam ne suñ diine ji démb ak tey ak ëllëg lay waxat mu ne ahlul kitaab yow yonent bi yéen jullit ñi maanaam yahood ak nasaara bu leen dàggewanteeg ñoom bu ngeen demee bay dàggewante jalongat lu may ci nam gën a rafetee lu may ku tooñ ci ñoom tooñ am na loi yu koy réglé waaw mu ne daal illaa bi lati ahsan wax leen leen ne amanna bi ladi unzila ilayna wa unzi wa unzila ilaykum de wax leen ne gëm nañ ñun jullit ñi ne tawraat yàllaa ko wàcce woon linjiil yàllaa ko wàcce woon fekk dara wàññeeku ca wa ilahuna wa ilahakum wahidun wax leen ne suñ yàlla jiñ gëm mooy seen yàlla ji de wa nahnu lahu muslimun ñun de ñun nangul nañ ko wax xam nga loolu yaa ngi koy oo ci oo bu rafet amul xulu amul saaga waaw waaw c'est ça wa nahnu lahu muslimun ca biir muy dem banaan ko nag yow sax yonent li nga ni nga mel yëpp terewul am na jamono xamoo jàng waaw maa kunta tadra maa kunta tatlu maa kunta tadri mal kitaab wala iman bu ko defee nag yooyu yëpp day fàttali nit ne yoon wi mooy alxuraan alxuraan nag moom waxtu woo ko waxee rek waxaale nga yi ngay jëfandikoo même boo mënta jàng alxuraan alxuraan moo tegtale julli alxuraan moo tegtale saraxe alxuraan moo tegtale tees làmmiñ alxuraan moo tegtale fonk sa wàjjur alxuraan moo tegtale dokk ak bokk alxuraan moo tegtale liggéey alxuraan moo tegtale tudd yàlla alxuraan moo oote yërmaande alxuraan moo oote maandu kon nag alxuraan yow yaa ngi ci diggante mën koo jàng wala nga jëflante ku la won ya muy jàngale noo koy jëfandikoo kawe na lool nag stade bi ngay jëfandikoo wérdu ak wasifa ak xadra wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah